million ci ay jaboon nag nekk na lu takku boo koy xool mooy genn wàllu Sénégal daal si doomu aadama danañu jot si ndimbal loolu ndimbali nag gis nañ ko li tàmbali bi la te lu bare bare bare bare moo nar a ñëw lii dañu tàmbali tey waaye ay euh, ñaari millions si saaku ceeb bu ma ko mënee euh, xayma mooy deux millions de sacs yi nga xam ne euh, dinañ ko jox njaboot gi jox leen itam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 moo tax dañu war di déglu ndigal yi nga xam ne waa kër docteur moom la ñu joxe te ñu moytu ndiku euh, li ñuy wax cas communautaire cas communautaire nag li koy indi mooy dox boo xam ne yow sa bopp fa nga jëm xamoon la xew xamoon ña ngay nekkal nan lañu ñu fagaro ci feebar bi ba tax mën nga ko fa jëlee wàll ko say njaboot wàllu ko say dëkkandoo wàllu ko képp ku la jege te tant que loolu mu ngi fi nekk ça veut que xeex bi day continuer kon conditions yi dina gën a jafe liggéey gën a jafe lépp gën a jafe kon nag bu ñu mënee muñ te it maa ngi wax plage yi nañu ko arrêté parce que mënuñu di bàyyi plage yi di dox wax naa ko ministre de l'intérieur ak lépp loo xam ne bu ay daje la su ko defee yàlla mën na def ci kattanam ak suñu farlu ci diir bu yem danañ mën a génn ci feebar bi waaye fii ak ñu ngi euh, continuer di bàyyandeku ni ñu koy waxee Euh, mbir mi day nekk fii di law rek te bu yàggee dinañ obligé kon li ñu bëgguloon def ñu def ko mooy arrêter complètement circulation ndax feebar am na fa muy toll bu fa yegsee dinañ ko def amul dinañ ko def completement kon nag balaa ñuy yegg si loolu ñu fagaru bañ fa yegg si ndax bu ñu góor góorgóorloo rek mën nañu bañ a yegg si si état bi kon loolu laa bëggoon wax di sant waa réew mi yëpp di sant kilifa diine yi si seeni ñaan ndax ay waay ngëm lañu. kon danañu fagaru danañu def li ñu war a def waaye danañu sàkku ñaan ñeel réew mi yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp journalistes yi nag war nañu wutal ay ay masque ndax war ngeen ko yéen itam di jëfandikoo ci fépp foo leen di liggéeyee parce que doomu jàngoro bi niñ ko waxee kenn mënu ko gis bët du ko gis. tey jii gis ngeen président de la république ñëw na maanaam joxe coup d'envoi lu ñuy wax coup d'envoi ci lii nga xam ne mooy ndimbal bi nga xam ni moom moo ko décidé woon. mu nekk ndimbal boo xam ni ci askan bi la jëm maanaam ci wàllum ci un million de ménages maanaam un million yoo xam ne borom njël bu ñu ko xaymaa peut-être ci population huit millions la. donc li opération bi ñaari fànn la bu njëkk bi dañuy dañuy jëlee ceeb bi fii nga xam ni ci ñu ñu ko jaay les fournisseurs yóbbu ko ci magasin yi mooy les magasin di commissariat à la sécurité alimentaire bi nga xam ni tous les départements am na fa. bu fekkee magasin yi fees na ni ñu yóbbu ko ci l'armée ji cantonnement armée fu armée nekk wala fu gendarmerie nekk wala fu police nekk te ñu am hangar donc loolu noonu la ñuy def fu mu nekk nii lii nag bëgg nañu mu am mu euh, euh, maanaam ñu def ko ci toll juróom-ñetti fan ci lu mu bëri bëri bëri juróom-ñetti fan bu ñu paree ci fan bu njëkk bi bu ñu ci paree ci lañu soogaa tàmbali maanaam joxe bi buy jëm ci njaboot yi mënuñu woon tàmbali loolu parce que tout simplement comité yi nga xam ni maanaam les quartiers wala villages yi ñu ngi koy monter pareegul donc fii rek pare dana mat xëy na une semaine dès que mu pare rek ñu commencé maanaam euh, joxe ndimbal li te wax nañ ko ndimbal bi dañ koy tàmbali aussi ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci registre national unique mooy borom bourse familiale yi ak ñooñu nga xam ni délégation générale protection sociale moo leen defaloon enquête donc gëm nañu en tout cas bu juróom fan yi passé bu neexee yàlla daañ ko tàmbali joxe gis ngeen aussi ne armée bi seen camion yi ñi ngi fii armée bi mooy yóbbu maanaam ceeb yi ci euh, maanaam ci caserne yi Battrain ak fu caserne armée nekk ñoom ñoo koy sécuriser gis ngeen aussi gendarme yi gendarme ñoo amee lépp loo xam ne escorte la escorte ak sécurisation ñoo ko yore police aussi da ciy bokk donc dañuy liggéey ak les forces de sécurité de défense. saa su la di am yu am solo yi bàyyi fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay